auzu billahi min asheytaani rajim wa inniya auzuha bika wa zuriyataha min asheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazati shayatini wa auzu bika rabbi an yaxdurun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu yéen waa àdduna di leen nuyu yéen waa Sénégal di leen nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a baaxoo saa su ne dinu topp seen site bi di Dakar Net ñi ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen nuyu di santaat yàlla bu baax menu may nu dellusiwaat tey seen jataayu alxilmu di jataayu xam-xam alxilmu di dox ci vérité absolue vérité relative spirituelle ak temporaire maanaam mbiru yàlla mbiru àdduna lépp loo xamante ni ñeel na xam-xam lépp loo xamante ni ñeel na mbiru àdduna al ilmu da ciy dox loolu moo tax tey nu déplacé wu ñëw seet ci koo xamante ni ñëpp xam nañ ka à partout dans le monde muy ci biir réew mi muy ci biti réew foo dem xam na nañu jëmm ji nga xamante ni moom la ñu seet si tey muy ci wàllu xam-xam ci wàllu diine muy dem fépp ci réew mi di fi def ay conférence di waxtaane yàlla waaye di waxtaane yenentu bi di waxtaane Serigne Touba sëriñam ba muy ab Ablaye Diop Bichri sëriñ Ablaye Diop Bichri la lañu seet si tey fas yéene ànd ak moom waxtaan ci ay ponk yi waxtaan Serigne Ablaye ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la bàyyi nga nuyu àdduna ak mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ni topp ci site bi Dakarnet aoudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim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 wa ala alihi wa saxaabatihi wa xayri qadimihi wa ummatihi ajmain mbokk jullit yi mbokku taalibe yi mbokk yu tedd yi topp seen télévision bu tedd bi euh, ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel euh, ci seen site bi di dakaar Dakarnet di sant sunu mbokk mi fi dikk tey seet sinu sunu màkkaan ngir waxtaan ak ñun lu soxal diine di sëriñ Majaw Fall nu koy ndokkeel di ko ziar ak équipe bi mu àndal yëpp ñu gunge ko ci liggéey bi di nuyu jullit yi ci àdduna bi yëpp di ci jiital sëriñ Mouhamadul Muntaqa mu cheikh Mouhamadul Bachir mu cheikhul Xadim mi jëmmi sëriñ Touba yàlla na ko yàlla sàmm yàggal lool ab taxawaayam te dolli ko wér dolli ko kàttan ba naal yi mu sumb yëpp mu àggale ko matal yéeneem te ànd kook taalibe yëpp. di nuyu ak a ndokkeel mbooleem xulafaawu diine yépp di ay mbokkam ñu séq diine ji ñu ne ci réew mi ci bitim réew ñu ngi nuyu ñépp di leen jox cër bi leen yàlla jox di nuyu mbokk jullit yi ni topp yépp nag moo xam ci réew mi la moo xam ci biti réew di jéggalu ñépp di tuub du xam-xam bu daje du teggin yu mate du àlliwa ju rëy waaye nattu la rek bu nu yàlla teg ñu ciy yëngu nit ñi njortuñu ci kon ñu ngi dogal ngànt ñi topp taraw ñu fopp li ñu fas yéenee wax yàlla na amal njariñ ñi koy déglu yàlla buñ ci gis sunu bopp yàlla nañ ko jariñoo seen mbokk Abdoulaye Diop bichri kon mu ngi tey ci dakaar Net ànd ak Madiaw Fall fas yéenee waxtaan ak yéen ci ponk yi ñu laaj incha allahu taala. jërëjëf sëñ Ablaye nuyoo bi am na solo sëñ Ablaye lan moo lan moo lan moo waral sëriñ Ablaye Diop Bichri lu tax euh, Bichri Bichri lu tax mu mu mu mu toftalu ci sa ci sa tur waaw sëriñ Madiaw xam nga Bichri mooy firi mbégte. waaw dafa am benn xasiida ci xasaayidi sunu maam cheikhul xaddiim bu tudd mafaatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqiimi sunna muy xasida goo xam ni ci ay salaawaat la ko sëñ bi tënk maanaam ci julli ci yanant bi muy xasida goo xam ni gu yéeme la toll na ci juróom-ñeent fukki page ak juróom benn di xasida goo xam ni suñ ko càmbaree dafay àgg ci ñetti téeméeri bayit ak juróom ñaar fukk ak ñeent 374 bayit di xasida gu yéeme goo xam ni sëriñ baa ngi ci bàkk yanant bi di julli ci moom ak di ñaan ci moom muy xasida jagle goo xam ni nag dafa bari lool ay taxsiis ay ay jagle ay xasaayis yu ko yàlla may moom xasida googu ci biir mboolem xasaayid yi bokk na ci képp ku koy jàng sëriñ Tuubaa mi ko liggéey wax na ni yàlla may na ko ci daraja yanant bi mu ko bind ci moom képp ku koy jàng koo nuyu yàlla dina ko jéggal bokk na ci ay jagleem képp ku takkoo xasida gi di ko jàng danga am mbégte te kuy dund mbég rek nga bëgg a dund bokk na ci jagle xasida gi ku koy jàng danga am bayre nit ñi dañ lay sopp mag ñi sopp la ndaw ñi sopp la góor ñi sopp jigéen ñi sopp moom xasida gi bokk na ci jagle xasida gi ku koy jàng danga am kaaraange muy sécurité doo amatilooy ragal ndax kenn mënu laa yàqal bokk na ci jagle xasida gi nag xam ngeen ni salaatu ala nabi daa bokk ci yi gën a rëy ci yowmal qiyaam ku ko ëppale foofa yaay gën a jege yanantu bi te xasida gi lépp sëñ bi da koy julli ci yenant bi muy xasida ak mbégte di xasida ak rajab nag weeru sëhru rajab di xasida ak Sha'ban weer wii nu nekk sëñ bi tënk na ko ci biir ah, di xasida ak Ramadan waaye di xasida goo xam ni njabootu sëñ Tuubaa fonk ko lool wax ci wax yu rëy xam ngeen ni sëñ Fàllu borom Kazu Rajab xasida gu mu bëggoon la njabootu sëñ Tuubaa fonk ko lool di ko jàng muy xasida gu rëy man nag may jaam bu ñàkk solo boo xam ni dama bëgg xasida ji am ci cofeel jamono yi may jàng nasaraan nekk étudiant booba jamono géejawaay lay jóge di jël P12 bi bis bi ma daan yóbbu université Cheikh Anta Diop su ma daan dem nag ba dugg ci kaar bi danaa ci def juróom-ñaar jàng ko ci lim taqoo yi gi ku ma mës a gis fekk ko ci sama loxo ma koy jàng ba ginnaaw bi ma jeexalee njàngum nasaraan ba dugg ci journalisme def ci tuuti commencé liggéey ci rajo yi mm-hmm. ah boobu jamono nag bu ma defee élément léeg-léeg ñu yónni ma reportage ma dem wuti ci élément mm-hmm. su ma ko defee nag comme rajo bi ma doon liggéey daa am ñetti Abdoulaye Diop mm-hmm. ñu daje ci tur ak sant léegi ñuy wutal ay dàkkantal kenn ki ñu ni nañ ko tuddee Abdoulaye Diop ndongal ndonga yi mhm. ki ci des ñu tuddee ko vieux Abdoulaye Diop maa ngi lay nuyu au passage man ñu ni ma comme yow da ngaa bëgg xasida ak Bichri nañ lay wax Abdoulaye Diop Bichri loola nag far law rek xam nga rajo ak tele dañoo gaaw ci siiwal dara mu mhm. mujj nit ñi di ma ko wooyee di ma ko mhm. wooyee ba mu law waaye sax du cër bu ma ci am xëy na waaye nit ñee ma tàmm di ma ko woowee rek ba mu far law ba léegi wax sama tur teg ci Bichri ñu daal di xam ki ngay wax kan la mm. kon nu ngi sant sëñ Tuuba ndax am benn kinaaya boo xam ni dara la ci sëñ Tuubaa rek loolu lu rëy rëy rëy la ndax am na ñoo xam ne ñu ngi leen di jagleel yeneen tur mm. di leen tudde ay artistes yu àdduna mm. di leen tudde ay fokat mm. man nag su suñu jëlee loo xam ne sëñ Tuubaa ko liggéey jëme ko ci ngën gi mi def yanant bi di ci dàkkantal sama tur te sàkkuwuma ko nit ñee ko gis ci man rek di ko wax alhamdulilah loolu rek moo lu tur yi kon ndeysaan am na solo loolu moo indi eh, Ablaye Diop Bichri kon ni ngeen ko déggee mu nettali ko ndeysaan muy loo xamante ni gëneel la ak euh, tànneef lu Serigne Touba waajoon ci jëmmam ndax booba sëriñ bi namm na ci moom liggéeyloo ko sëriñ Serigne Ablaye Diop nuy waxtaanee ci lu jëm ci wàllu sujjóot. Hmm. mu mel na sujjóot yi bare na te wuute. Hmm. mu mel na am na ñetti sujjóot yoo xamante ni bëgg naa nu taxaw ci seetlu. Hmm. benn bu ne nga wax ma ci turam. am na sujjóot bu ñuy def ñun mbokku taalu bi murid yi am na benn sujjóot boo xamante ni yàlla digaloon na malaaka ya ngir nu defal ko yonent yàlla aadama mhm. ak sujjóot bi nga xamante ni booy julli danga koy def mhm. ñetti sujjóot yooyu mhm. naka lanu demee lan mooy seen différence ñoom ñett ak bu ne lan lan la tudd waaw jërëjëf euh, ci laaj bu am solo boobu xam naa ñu indi ci benn bayaan benn leeral bu tuuti buy xamle ni li murit yi di def tuddul sujjóot waaw moom du sujjóot murit yi li ñuy def taq biilul yaddi la ko arab di wax mooy fóon ab loxo ngir lan màggal lu yàlla màggal yàlla njëkk a teral doomu aadama ñun ñëpp jàng nañ ko ci alquran wala qad karam naa bani aadama noonu yàlla ca dëgg-dëgg xam nga yàlla bu waxoon qad karam naa bani aadama doy na wala wa karam bani aadama day doy waaye dafa wax wala qad karam naa bani aadama xoolal jàngatu grammaire bi ci nekk nga xam ne sunu borom indi na ci laamu xasmu mooy laam goo xam ni waata tax nga koy wax indi ci xaddu taqiiqi ndax xadd ci arab dafay baat boo xam ni day dox ci ñeenti mbir yu wuute dafa am xadd goo xam ni moom lañuy ñuy wax xadduk takshiir am xadd goo xam ni moom la ñuy wax xadduk taqliil am xadd gu ñuy wax xadduk taqrib am xadd gu ñuy wax xadduk taqiiq benn bokku ci àtte bu dee xaddu taqiq nag mooy wax ju dëggu joo xam nit mënu koo dindi nga daal di koy jiitaleeg xadd ñaare feexlu bi muy àndal day nekk feexlul maadi mooy verb bu paase nga xam li ngay wax lu am la ba nga teg ci bët kenn mënu koo dindi yàlla noonu la waxee ci baat boobu wala xadd karam naa bani aadama suñ ko doon firi day mel ni sunu borom dani ca dëgg-dëgg waat naa ni teral naa <laughs> xam nga ca dëgg-dëgg mm. muy dëgg mm. waat naa ci borom bu toll ni yàlla hmm. door caa teg ne teral naa doomu aadama kon teraa ngay doomu aadama saa su xëyee di ko gis ni ko yàlla terale hmm. xel mi ci la bokk hmm. sàkk gi la sàkk ci la bokk def gi la def nit ci la bokk bu ko neexoon def la leneen ah, làmmeñ wi mu la jox ci la bokk gët yi xool ci la bokk diine jëm la boole ci la bokk wér gi yaram ci la bokk lekk geeg naan ak nelaw ak yëpp di ay besoin naturel yu mënta ñàkk lépp yàlla baaxe la ko kon teraa ngay doomu aadama saa soo gestoo gis ko mu ne nag ñu ngi giñ ñu ni yàlla ci dëgg-dëgg ni teral nañu doomu aadama kon teraa ngay doomu aadama jooju benn jàmbaru ko teddadil léegi nag yàlla moo sàkk doomu aadama sàkk ko ci forme bi gën a rafet ah laqad xalaxna al insaana fii ahsani taqwimin dañ ko indil ci forme bi gën a rafet ci la yàlla sàkk doomu aadama doomu aadama jooju nag nga nuyu ko mu nuyu la nga fopp loxoom bii fóon ko war ko ni ko lu ma fonk la ngir yàlla ni fi mu la teg lii la murit di def déedéet bokkut ak sujjóot mm. ndax sujjóot pour nga def ko faaw sa juróom-ñaari cër yëpp sujjóot sujjóot kenn du ko defal ko tuuti yàlla mm-hmm. yàlla la ñuy sujjóotal mm. bële nga xam ni mooy ba muñ defaloon maam aadama mm. kooku ndigalu sunu borom la da koo digal ay malaaykaam sujjóot la waaye boobu sujjóot ba tey bii moo ko gën a valeur bi ñu defal yàlla ndax bële jaam lañ koy defal te yàllaa ca joxe ndigal waaye bi ñuy defal yàlla moom beneen affaire la nga xam ni moom dangay wane ni moom rek kay buur di boroom duma dara nekkuma su génnee daraam ci moom ma alku nga jël sa lépp toroxlul yàlla sa juróom-ñaari cër dem boo seetloo keroog bi jullit yi amee jafeñ-jafeñ ci màkka yéefar yi di leen teg na ndax gëm gi nu gëm ngën gi min def yenant bi alayhi salaatu wasalaam ñu dem ba jaaxle yanant bi ñu leen génn leen ngeen dem ca Négus mooy roi bu Éthiopie su ngeen demee seen mbokk la mu fat leen kooka pourtant chrétien la waaye dem leen mu fat leen bi ñuy dem Jaafar ibnu Abi Taalib jiite leen bi nu ñëwee yéefari jiitu leen fa ci buur bi ni leen am na ay rebelle yu fi ñëw ay renégat lañu ndax dañoo bañ li seen maam yi gëmoon topp jenn waa ji ñuy wax Muhammad ñu ngi fàyyi ko nag Màkka nar a ñëw Éthiopie suñu ñëwee dinañ fi indi nag désordre su boo nga teel na a artu dàq leen sa dëkk buur bi dañuy déedéet comme dañuy ñëw ci man xamaguma luy seen mbir sañu ma dàq leen ndax dañoo jóge ci territoire ñëw sama territoire loolu day indi kon euh, dialogue islamo-chrétien lu ñu mat di bàyyi xel Sénégal yàlla moo moonu boole ak chrétien yi waaw muy ànd bu rafet boo xam ne ku nekk sa pas-pas te kenn du lor sa morom mm. loolu démb la woon ñëwee biir Éthiopie jaafar dikk yéefar yi jiitu leen fa yàq xelu buur bi buur bi ni déedéet bàyyi leen ba ñu ñëw ma xool lu tax ngeen wan leen ginnaaw mm-hmm. bi ñu ñëwee di ko asalaamu aleykum nuyoo bi ñu nuyoo mm-hmm. loola mel ni dafa indi révolte bi tax yéefar yi ni wax na waxoon nañ leen ko mm-hmm. ñu ngi nii gis nga niñ la nuyoo nangu ñu laa sujootal sax mu laaj jaafar lu tax sujootoo mu ne ko déedéet sujoot duñ ko defal ku dut yàlla xaraam na defal ko jaam koom nun waaye nuyu nañ la nuyu bi gën a civilisé te gën a rafet muy nuyoog islam ñaanal la jàmm ak yiw waaye nag sujjóot yàlla lañ koy defal loolu la ko waxoon waaw ca lañ waxee nag mu ni ko daal lan mooy seen mbir mu ni ko noonu dafa am ku yàlla yónni ci noonu ñu gëm ko ñoom ñu weddi ko gëm gin ko gëm nag tax ñu teg ñu bépp mettit génn nañ ci seen dëkk tooñ ñu tooññar bi ñu yarantu bi digal nu ci ndigalu boroomam ñu ñëw fi làqu ci yow mu ni ndax seen yarantu boobu ngeen di wax am na lu ñu wàcce ci moom mu ni waaw muy alquran jaafar commencé jàng sóoratu mariyaama ba mu ne keef hë ya ayn saat zikru rahmati rabbika abduhu zakariya iz naada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana al azmu minni wasta ala rasu shayban walam akun bi duaaka rabbi shaqiya wa inni xiftul mawaale min waraa'i wa kaanat imraati aaqiran wa qad balagtu min al kibari utiya di ko jàng ba àgg ca waskur fil kitaabi maryama izin tabazat min ahliha makaanan sarqiya fa taxazat min duunihim xijaaban fa arsalna ilayha ruuxana fa tamasala laha basaran sawiya mm-hmm. mu koy jàng nag ba àgg ci histoire yu Isa buur bi mel ni rongo jëm day toog moom mm. li nga nga xam moo jiite woon éthiopiens yi mm. waaw te chrétien la mm. mu daal di mu ngi yoroon benn li anglais yi wax pik mooy euh, li ñuy sikoroto benn cure mu tàllal ko ni ko li nga doon jàng ak li ñu indi suñu bible indi évangile différence bi tollut ni bant bii may sikoroto kon mën ngeen fi am hospitalité loolu chrétien yi ko defaloon islaam waaye la may bëgg a jàngale ci xissa bi mooy sujjóot googu ñu ko doon wax dañuy déedéet yàlla la ñuy sujjóotal bokkut ak nag bële nga xam ni maam aadama xam nga maam aadama sunu borom da koo sàkk mm-hmm. muy la forme humaine di nit mm-hmm. waaye li mu làmbool mooy yanant bi ndax yanant bee tax nu amal ko mm-hmm. te yanant bi ci forme boobu mu def aadama ci la sàkk yanant bi te yanant bi tey mooy général bi mooy sangu ñëpp moom la yàlla favorise ci kaw ñëpp mu gën leen du moroomu kenn ci mbindeef yàlla yi waaw xalaat benn mbindeef di ci xalaat yanant bi sax bàkkaar bu rëy la di xalaat kenn ku yàlla mës a yónni ci di ko comparé ak bi sax jaaduwul hmm. ci ab jullit boo déggee sëñ Tuubaa ni kullu nabiyin wa rasulin yatba'u xalfa wasilati huwal muttaba'u waaw képp ku ñu mës a yónni hmm. wala moo xam da ngaa solo wala da ngaa toog noppi te yàlla yónni la loo rëy rëy di nga jàll ci ginnaaw sama wasila bii di yanantu yàlla Muhammad ci ginnaawam nga jàll waaw ca ginnaaw rek mais kanamam kenn du fa taxaw loolu xaram na moom la waaw léegi bi yàlla waree indi maam aadama lool nag mbiru baatin la xam nga boo ko waxee dof boo xam ne dafa mel ni man muy àttewoo ci ni moo yarant bi maam aadama lim ko mage loolu zahir la mais baatin Moustapha fi jiitu ñëpp leeram la yàlla amale lépp dégg nga sunu maam Seydil Hadji Malick ca téeréem ba tudd Zajrul Qulub mu wax ni euh, wa maa xalaqa arrahmanu say an li nafsihi siwa Seydil Mahmoudi wa huwa kon li yàlla amal lépp yonent bi rek la moom rek la bëggoon a wane. moo waral sunu borom indi lépp Seex saat bu nee na innal muraada min ijaadil xalqi ijaadu ahmada li fatqi ratqi nga xam ni kon lépp intention bi ko yàllay feeñal yonent bi rek la bëgg a wane. waaw yenentu boobu sallallahu alayhi wa sallam ñu sàkk ko ci forme bi nga xam moo gën a rafet ci forme yi muy formu humaine maam aadamaay maamam mais yonent bey maamam ci baatin kon yàlla li tax. mu ni malaayika yi su jootal leen aadama du jëmmi aadama ji kese leer ga ne ca moom te war a indi yanant bi mm-hmm. moo tax kon mu bëgg nu su jootal maam aadama mm-hmm. directive bi mu joxe nag am ku ñuy wax iblis xam nga iblis bu ñu la waxee cosaanam ni mu cosaanoo dafa yaroo ci diiwaanu malayka yi mm-hmm. ak jinne yi ndax àdduna bii ñu dëkk jinne yee ko njëkkoon a dëkke bi fi jinne yi nekkee dañ doon def désordre di mooy yàlla di tooñ di toññar bi sunu boroom xëy indi meram yebal ay malaaykaam ni ravager leen lépp bu fi kenn des bi mu leen yebalee ne da ngeen jële fi jinne yëpp toxal leen ñuy dàq jinne yi ñuy làqutu loolu moo tax ba tey jinne day bëgg côté grotte ay xeer ak côté géej géej waaw dafa ragal sedd nag moom jinne waaye day làqutu ci wetu géej gi parfois ndax booba la woon ci cosaan gi bu ñu tawee nag di dem am ci benn xale jinne bu ndaw bu jigéen Euh, bu tudd Azazil euh, ñoom malaayka yi bi ñu ko jàppee sunu borom ni bu leen ko lor man ngeen ravagé lépp te ngeen bàyyi kook ngeen téyel ma ko ñu téye ko nag yar ko ci seen biir biñ ko yaree nag malaayka xam nga moom sàbbaal rek la xam ndax malaayka sàbbaal gi muy sàbbaal ak jaamu boromam ci la lekkam ak naanam nekk waaye du lekk du naan comme nit parce que bokkuñu ay besoin yàlla sàkkiw ko noonu bu malaayka yi di sàbbaalal sunu borom nag jinne ji ñëw di leen sàgganu mel ni kuy xaayu di leen wan awraam te xam nga loolu day rey malaayka ñoom nag ñu laaxan ko sunu borom mu ni bu ko defetee na ngeen jël jumu sawara ngeen def ko ci awraam ci pëyu pëy mi bis mu def ko rek ñu jël benn jumu sawara def ko ci pëyu ndaw soosu di dée nga di liisa liisa sax lañ ko doon wax ñu def ko ci mu am doom doom jamu am nag di sawara kon ndax ci sawaral cosaano loolu la ëmb muy wax ibnu ibnu liis mooy ibnu liis sa loo indi turi kooku nag bi mu juddoo kon formé woo ci leer formé woo ci jinne yi ak malaayka yi gis na ni malaayka yi daan jaamoo moo tax mu man ci jaamu kenn mënul moom iblis muy jaamu sunu borom nag xeetu jaamin wu tar guddi bëccëg xam ni fu ne fu mu taxaw jaamu na fa yàlla fu nit taxaw tey di mooy iblis jaamu na fa yàlla jaamu gi rëy lool ba sunu borom na xëy indi doomu aadama ngir bëgg a feeñal ki gën ñëpp yonent bi ma hmm. mu indee aadama nag mu ni nag yéen usjudoo li aadama waaw ah. nee nañu sujjóot leen ngir aadama fa sajadoo kulluhum nag ñoom ñëpp ñu daal di sujjóot illaa iblis nag iblis lànk ni du ma sujjóot waaw noonu kat nekkul woon ci way sujjóot ñi daak ngi du ma sujjóot sunu borom ni ko loola teree sujjóot mu ni parce que maa gën kii kon rëy dugg na hmm. parce que yow su fekkoon da ngaa ñëw indi ma sa bureau embauché ma li ma sëñ Ablaye Diop bi si damaa bëgg nga may liggéeyal ndax man ngaa bind lettre français ma ne la trop du am benn faute ndax calligraphe nga man la waaw sama bind day rafet lool sax nga ni ma ndax man ngaa tàppe ci ordinateur man la moom laa gën a mën nga ni ma ñaata langue nga dégg pour def ko sa curriculum vitae sa CV man la dégg naa 14 langues internationales nga ni ma sëñ Ablaye ndax jàng nga diine man la mokkal naa alxuraan jàng naa diine nga ni ma sëñ ndax yow sawar nga ma ne la foo ma yónni ma dem hmm. <laughs> nga di ma sëñ ab laay ban heure ngay xëy si ma ni la man mën naa xëy si fajar maa la fiy njëkk te bala maa génn nga jox ma ndigal mën naa fi sax fanaan bu la neexee sawar defal la lépp am xam-xam ak expérience bu toll noonu nga may fay 1000 francs par weer ñu dem ba jëmmi jamono nga indi benn surga boo xam surga la war a doon ci man dikk moom mënta bind turam mënta signé mënta tàppe ci machine xamul ordinateur déggul benn làkk bu xëyee tey noppalu juróom benn fan absenté nelaw ba doyal di yàq di tooñ di yàq sa entreprise nga xëy di ko jox deux cent mille bàyyi ma ak mille nooy def mer ah léegi su fekkee man dëgëroom la naan mais kii def maa jënd kii kii damay moroomam mer noonu la problème mu iblis demee ak maam aadama doomu aadama mën naa tooñ rëy na bari na yàq bari na ay erreur iblis nga xam ni da doon jaamu sunu borom musu ko tooñ fenn fa mu koy jaamu. loolu rek nag tax sunu borom xëy nag sàkk aadama ni ko nag kii sa kilifa su jootal ko ñëpp su joot nag mu ni maa bañ du ma ko su jootal rëy daal di dugg sunu borom ni ko lu tax doo su joot mu ni parce que maa ko gën duma moroomam parce que lépp fi la ma fekk te xam naa ko bu baax da yàqkat lay doon te man li ma la defal kenn du la ko defal gis boppam. sunu borom nag daal koy dàkku dàqe ko ci àjjanaam ni ko dootoo fi dëkk demal dama lay teg sama mugal mu yàlla da ngaa maanu comme damaa liggéeyoon lu bari ci fay fayoo ma ko jox ma samay heure <laughs> nan la demee suñu borom ni ko nag dinaa la ko jox waaye nag dinaa la lakk ëllëg mu ni ko waaye itam boo may lakkee dinaa yàq lu bari dinaa leen dévier sunu borom nag di ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun mm. sama gaa yi dëgg doo man ci ñoom dara mm. mooy gaa yu baax yi nga xam ni iblis amul ci ñoom pouvoir mm. waaye nag am na ñu bari ñu muy dévier tey ñaa daa ne ci po gëm ko lool ci finance seen xaalis iblis nag di dem sujjóot boobu kon bokkut ak bii sujjóot ngay wax booba directive yàlla la mu ni sujjóotal leen ko ñu sujjóotal ko boobu sujjóot dañ koy sujjóotal màggal ko ngir yàlla ak yanantu bi nga xam ni moo war a jaar ci moom mm. beneen sujjóot bi mooy bi ñuy def nag bu ñuy julli mm. nga xam ni juróom-ñaari cër yëpp ay dem mm. ndax xam nga tey jii da nga sëj sëpp sa jëbi teg sa loxo yi sa ñaari wóom yi teg sa cati tànk yi teg kon juróom-ñaari cër ngay sujjóote boobu mooy sujjóot dëgg dëgg bi nga xam ne yàllaa ko yeyoo moo tax bu ñuy julli nag ñu ni rëpp ci suuf mm. wàcce sunu dara yeeg yëpp su jootali borom bi ni ko nag ñu ngi noonu mm-hmm. kon boobu yàllaa ko moom mm-hmm. murit nag li muy def taqbilul yaddi la tudd mooy màggal ab jaam fóon loxoom pour wan ko rek ni kii production yàlla la mm. te yow menuisier bi boo defaroon sa benn ban sax su ma ñëwee saboote ko nga gis sa bopp mm. soo nee ah macha allah rafet na ma daal di am tuuti benn fierté kontaan kon loolu rek la murit di def daa am ñu ko xamul nag terme bi di ko woy sujjóot waaye murit li muy def xaraamul lu rafet la mooy taqbilul yaddi loolu bari na sax ñu koy def sax nekkuñu murit dinaa gis parfois suñu mbokk ci cana ba ñu koy def waaw loolu dara nekku ci léegi-léeg nga gis sunu mbokk shérif yi di ko def nga gis ku mu sujjootal la loolu dara nekku ci waaw loolu du sujjoot taqbiilul yaddi la ñu tudd jërëjëf sëñ Ablaye defe naa loolu leer na ci question boobu nga xamante ne moo doon sujjoot beneen bi mooy dañu seetlu dañu gis sëriñ bi hmm. ci benn xase bu naan raa mu waxee ci mu waxee ci noo xamante ne ci yeneen bi mhm. mu mel ne dafa xaw a défier xamante ni mhm. ay waykat lan woon yoo xamante ni xam nan leen ba tudd na ci Kaap Asan ak bu Seyru euh, ni leen ahlu fasaaxati turra bi sanaa mbaddu mhm. wallay sa yudriku ba boi bi taya ñi am fasaaxata mën a way way nanu waaye li ci sëriñ bi teg mooy waaye wallay sa yudriku ba boi abawaa bi tayaaru maanaam li nu way yëpp waynu maanaam la yonent bi doon dëgg-dëgg daa mel na gis li nu way mooy leer gi nga xamante ni wala yàpp yaram bi la nu way waaw naka nga déggee loolu sëñ Ablaye ci waykat yu mag yooyu nga xamante ni sëriñ bi da leen défier ci way yonent bi waaw loolu lu wér a wér la mm-hmm. xam nga sëriñ bi du ñëw rek wax dara sànni ko par hasard déedéet mm-hmm. sëñ bi day rampe moo tax ma wax ni liggéey ku ko bëgg mu bën da ngay rampe mm-hmm. ngay jaar ci par ay étape dafa am ay maraaxiil da ngay am marxala bii nga tollu ci. Mhm. dem ba mu yàgg sunu borom mii def lu ko neex jëlee la ci marxala boobu yóbbu la ci beneen nga féete ku kaw. Mhm. xam nga sëñ bi ci njaal bi day wax yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def ma tàggkatu ngën gi mindéef mhm. ma koy tagg lu rafet booba foofa la toll. dem ba jëmmi jamono mu ni maa ngi lay ñaan nga def ma tàggkatam ba ma dem dab ba ma dab Kaab ak Xaasaan ak Xasaan ibnu Saabit ma dab leen kon booba waxul ni raw naa leen. ba mu demee tam ba àgg ca dab leen mu ni dab naa leen maa sant yàlla ba mu leen rawee tam mu ni jaawastu jéggi naa leen <laughs> ah, raw naa leen loolu kon yàlla ko defal mm-hmm. ak mahabbaam ci yenantu bi mm-hmm. ndax moom bu ñu fàtte ni dafa jël tagg yanantu bi def ko liggéey ci moom fonction la ci ko tagg ba bëccëg yàlla tam beral ko loxo ndax bu la defee xaadimu rasuul faaw nga man lu kenn mënul ndax moom mooy xaadimu rasuul mm-hmm. tey jii su ma la indi sama kër def la sama surga bi ma gën a jegeñ jox la caabi kër gi dénk la sama alal nga xam sama trésor fi mu nekk di ma yóbbul samay doom école di dawal samay daamal samay oto da nga dem ba kër gi nga man ci lu ci kenn mënul. dëgg la ah sëñ Tuubaa foofu la àgg. Mm-hmm. dafa dem ci yanant bi ba àgg ci yanant bi yanant bi di ko gane sil boppam dégg nga nga nag fukki fan ak juróom yi mu ko defal ci njaareem ba tey baytu rasul lañ ko tudde mu nga ci njaareem. Mm-hmm. loolu moo tax mu xam ni xam na ci yenant bi lu ci kenn xamatul man koo tagge tam ni ko kenn mënta tagge da caa àgg moo tax nag léegi boo àggee ci benn niveau bi xam lu ci kenn xamul da nga sañ a xool ki ko waxoon nga ne ko wax ji li muy rafet rafet fii moo des nag lii soo ko mënoon defee nii moo gën ndax kii ba ba jaxasoo ma xam naa ne lii des na ci xam nga tey su fekkee jaxasoo ma ak yow mën naa ni ah diw de ku baax la rek ni ma ko gisee nii ci biti mm. waaye suñ demee ba jaxasoo dinaa xam ba xam diw ku tàlli am tàlliwul dinaa xam diw ba xam borom fit laam amul fit kon léegi gën kee jaxasoo gën kee jege yanant bi moo ko yóbbuwaal tam mu gën koo mën a tagg ba mu ci àggee tam ci maandoom mu xam ne lu ko yàlla may la mu ni ci tagg gi ma doon tagg yanant bi jéggi naa kaab jéggi xasaan dégg nga sëñ Moussa Ka ni ko yaa fi daan woy yonen ba yaa doon kaabun booba tolloon na fa yaa wedam loo buseyri ak xasaan yi wax na dëgg mm. dafa dem ba xasaan ak buseyri mu wedam loo leen ci woy mm. loolu nga ma laaj ci raaya rectification bi leen defar rek lay wan ni kon daf leen a gën a dégg yanant bi ndax kaab dafa woy yanant bi ci baanat suaadu xasida gu rafet la wa jàngee téere bu ñuy wax muxtaarul adab ci jaar ci xam-xamu luxa rafet lu rafet la fa woy yanant bi xasaan noonu woy ko bu séeri noonu xam nga téere bu mel ni burdu nga xam ni soo demee ti Tiwaawan sunu maam Seydil Xaaji Malick téere bu mu fonk la diggal ko njabootam bu Seyriw ko bind égyptien la waaye firiwul ni dafa dàq woy maam Seydil Xaaji Malick déedéet maam Seydil Xaaji Malick dégg gi mu dégg yanant bi bu Seyriw dàqu ko woy arab waaw waaye lan la mag ñi dañu baax dañoo bëgg a wane lu baax fu mu am ñoom nangu nañ ko xam nga da ñëw ci sëñ Tuubaa mu naan saa su ma waxee ni diw nee na te waxuma tur maa ngi ci jublu imaam Ghazali kon dañuy nangu cërub sunu borom fu mu am demal ci masaalik sëñ Tuubaa di cité ay nitu yàlla yu mag naan diw na mu ko waxe woon nu ngi barkelu ci moom dañuy am ñoom franchise intellectuelle bu ñu gisee lu keneen wax ñu jël ko bu rafetee xam nga maam Seydil Hadji Malick li mu woy tey ci nuuni ya ni mu rafetee nga xam ni jaaxal na woykat yépp nga xool li mu woy ci xilaasu dëhëb mënoon nañ koo gàmmoo Tiwaawan mais lan moo tax mu dem di nu jox Mouhamadul Buseyri xam na ne lislaam bi dafa yaatu lépp géewu yanant bi la équipe am la lu mu gis mu rafete feneen mu jël ko ne njaboot gi dañ koy jàng mokkal ko waaye Buseyri ko woy mais ci biir téere boobu di burdu da ngay dégg Buseyri mu wax fa ni ah, fa mablagul ilmi fiihi annahu basarun foofa dafa gàkk la wax bi mu koy woy ndax Buseyri dañu wax ni dafa ame woon tawat tawat joo xam ni moom la tubaab di wax paraplégie mooy paralysie boo xam day am sa membre inférieur supérieur yëpp lay jàpp nga tëddu ci lal dootoo mën a dem fenn. bi ko loolu dalee mu def taw tawasul ci yanant bi wax ni daal su ma yàlla joxaatoon ay tànk ki loxo dinaa woy yanant bi lu ko kenn mësta woy ca la wooyee nag ca la ko yanant bi feeñoo lañu wax am ñu ne da koo indil ak ak ak saafara moo tax ñeeñ tudde téere ba bur atu bur atu mooy firi ci arab gérison wér am ñu ni dee burda burdatu la firi mooy firi mbàjji mooy firi mbàjji mi ko yanant bi muure mu daal di wér cala nag wooye wooy wu rafet woowu di burdatul madih am na sax ay sëkkëre ndax burdatul manafih it mu ngi ci marché bi nga xam ni bayit bu ne am na njariñ lu muy jariñ ci kuy ñaanlu ci wàllu lasraar ca wooy wa nag ca biir dégg nañ bi mu àggee ci bayit bi ma la wax dafa wooy wenn xàbb wi daal di mel ni ko gag yarantu bee ko àggaleel xàbb yi ndax dafa woy ni fa mablaghul ilmi kente sensu xam-xam fa mablaghul ilmi dayoo xam-xam fa mablaghul ilmi fa waxiyam ak tagg ci yanantu bi ci xam-xam fii ci yanantu bi mooy annahu basarun mooy nga wax ni moom mbindéef la li <laughs> taxaw nag waaw daa ni moom mbindéef la yonent bi nag yenkewel ko mu dolli ca nekk waaye nag wa annahu xayru xalqillaahi xayru xalqullaahi kullihim waaye nag mindeef la waaye nag mindeefi yàlla yëpp du seen morom moo leen gën sëñ Tuubaa bi mu koy jubbanti dani loolu sax jaru woon a wax ndax soo ñëwee di yonent bi mel da nga koy comparé keneen day mel ni da ngaa fàtte cëram waroo woon a wax lool dangaa war a wax ni xelu doomu aadama ni koy yàlla liggéey ak xalaat bi moo mënta xam kooku mooy kat <laughs> bu jéem a dugg ci boobu côté. ndax suñ tuwaa ni fa mablaghul ilmi fii annahu basarun waaye wa annahu doonahu aqlun wa afkaar waaw doonahu mooy nekk na ci suufam àggul ci moom aqlun xalaat dégg nga xel wa afkaaru ak i xalaat yarantu bi la xel ak xalaat mënta xam ku mu doon kon nag fii bu sëri man ngaa woy lool waaye waroon nooy xalaat nii sax ñu ne ko lu tax mu ni falaa taqi sub na abdillahi bil fudala ndax innal kawaakiba yuq fi a sinni maaru xoola sinnimaar rek nga xam ni arab yi yeex nañ ko xam sëñ Tuubaa woy na ko bu yàgg waaw nga xam ni après la ñu xool seen dictionnaire door ko ci xam muy académiciens yi di ko jeex ba gis ko ni ci mooyu njëkk yi la sinnimaar mooy firi weer la moom the moon sëñ Tuubaa ni euh, falaa taqisoo bu leen xalaat bu leen xiyaas ibna abdillahi doomi abdullahi ji bil fudala ci borom ngëneel yépp leen ko ci xalaat bil futala ñu ne ko lu tax mu ni innal ni niki ay biddiw yux fii xaa dana leen nëbbu sinni maaru weer bu weer génne nga ne fay xooli biddiw erreur la kon foofa dafa mel ni ku ko jubbanti daal koy wax ni ko waxe woon nii moo gën a rafet beneen ba ca des kaab dafa woy moomit ci benn bërëb di woy ba mu yàgg mu wax ni moom yarantu bi dañu ni waaw mu ni euh, wa man takkoon bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fii ajaamiha mu ni taxuri mu ni képp koo xam ni danga def liggéey rasulullahi muy sa muy sa lépp rek liggéey rasulullahi di ko tagg boo ko defee muy sa ndono di sa lépp di sa alal mu ni boo daan woon ci golu gaynde bul tiit bul ragal bul jànnaxe ñu ni kaab luy am mu ne gaynde ga ci boppam dafay gëlëm muhammadul busheeri ni wa man takkun bi rasulillahi nusratuhu in talqul usdu fi ajaamiha tajumi mu ni bu fekkee dangaa def tagg yanant bi muy sël lépp ak di ko bàkk soo daanu woon ci golu gaynde mooy li ñuy wax tañeer fi gaynde di nekk soo fa daanu woon ñu ni ko waaw mu ni bul tiit bul jànnaxe ñu ne ko luy am mu ni su boobaa gaynde gi dañ la koy ngalaabal jël gémmiñ gi yëpp takk ko jéng ko ba mu dëggatu dem fenn mais xoole bi sëñ Tuubaa ñee ni mu leen jubbantee dañuy déedéet ndax man nañoo takk gaynde gi jéng ko mu dagg jéng gi ñëw ci yow daal ni kaab gaynde gi mën naa gëlëm waaye ci benn instant mu jëkki-jëkki gindee ko waat xam fi mu jëm kon loolu lépp du noonu booy tàgg yenent bi doo wax la ñu ni sëñ Tuubaa looy wax mu ni waman takkun bi rasulillahi nusratuhu in talquhul usdu fii ajaamiha talini luy loolu mu ni bu fekkee da ngaa def liggéeyal yanant bi muy sa ngànnaay di sa lépp boo daanoo ci golu gaynde gaynde gi du gëlëm kenn du la takkal gaynde gi day ànd ak sang am ñëw ba ci yow mu nooy nipp jébbal la boppam gis nga gën a déggee profondeur day ñëw jébbal la nga xool keroog bi mu wàccee ca euh, jardin d'essai bu Saint-Louis gaynde lañ ko booleel xoolul sax gaynde gi mu ngi ci tagg yanantoom ak julleem ak ay waxtoom ngay ndéggee ñëw waaf ci wetam tëdd kon 100 francs am lay àndal jox la sa bopp waaw jox la boppam ngir yanant bi nga jàpp kon loolu dalay wan niveau bi Sëñ waa doon wooye dafa jéggi woykat yi waa boo ko xoolee ci profondeur woyam du nekk benn soo ko xoolee ci plume am ni mu gën a dégg araab du nekk benn te loolu du sama wax ah mauritanien yi nga xam ñoo gën a xarañ ci woy am na ku ko ci wax loolu Mouhamadul Fadil ibnu Ahmadu Dalili al Yanqoobi ci Mauritanie woni sëñ Touba yaa nangu grammaire arabe nangu vocabulaire bi nangu générosité bi nangul tous les mots nécessaires moo tax ñun ñi nampoon arabe dañuy mujj di ñëw àbb ci yow mu ak grammaire c'est c'est totalement différent sëñ Touba ni mu taggee yanant bi loolu nag moo tax lu ko yàlla jagleel ndax mooy xaadimu rasul il faut mu mën a tagge yanant bi ni ko kenn mënta tagge yanant bi tam may ko lu mayul kenn loolu moo tax xasaa yi dem yi bari mm. baxru yi bari téere yi bari déggin wi xóor li mu ko defal bari li mu ko liggéeyal bari jërëjëf ab Ablaye Diop Bichri defe naa leeral boobu am na solo ci Serigne Touba ak ni mu demee yenent bi ak tagg yi ak niveau bi ni mu ni ni nga xamante ne Serigne bi yéegi na ko ci xam-xam gu mu am connaissance ci Mouhamadou Rasulullah euh, Serigne lay Diop xam naa ni comme ni ñu ko waxee émission bi day dox ci vérité absolue ak vérité relative mënta ñàkk nu nu nu dugg tamit tuuti ci actualité mu mel ne lu jëm ci wàllu réew mi waaw réew yi sax laay wax. Hmm. jamono ji réew yi fi mu ni mu toll. Hmm. xeex yeeg ñàkk déggo bi. Hmm. nga dem ba dégg tubaab bi di wax nouvel ordre mondial. waaw nga dégg fii ci réew mi tamit am na ñoo xamante def nañu benn kuréel. ñi ngi xeex lu jëm ci lan lañ ko tuddee kuréel bi mi ngi tudd. Euh, sàmm jikko yi. waaw maanaam ci loo xamante ni xëy na tiit nañ ci. mën nañ ko voté ca bitim réew. mu ñëw ba sunum réew. nga gis léegi jamono ni mu soppeekoo. doy waar yéeme trop. loo mësul dégg di am. lu ne di xew. ak fu euh, maanaam nit ñi di jéggaani hmm. jikko yoo xamante ne du woon seen jikko hmm. fii hmm. du woon seen euh, dononu ko fenn ban jàngat nga am ci réew léegi tey tey tey jamono ji muy at muy si monde bi ak fii ci réew mi Sénégal waaw xam nga Sénégal moom bu dee bëgg ngaa dégg dëgg soo amee as lëf ci xam-xam te nekk visionnaire di xool tuuti ci kanam da ngay tiit li lay tiital mooy bari na mag ñoo xam boo leen yeewoon tey dañu lay wax fii du Sénégal gi ma gane woon àdduna fii du Sénégal gi ma doon wootee tey demal nga yee maam Seydil Hadji Malick ca Tiwaawan mu ngi fa tëddoon 1922 nga ni ko Sénégal gi nga fi bàyyi woon moo mel nii mun la mukk du fii demal nga ni sëriñ Touba mee ca Touba Sénégal a mel nii mun la mukk fii du Sénégal demal nga ni Seydina Limaamu Laay borom appel bii fi nga doon wootee boobaak léegi romb bi téeméeri at ak nangam fii nii la mel tey dalay wax fii du Sénégal ndax lan jikko yi moo yàqu kon waa yi dañ koy rafetlu. te war leen cee dooleel war leen cee jàppale war cee ànd ak ñoom jullit bu mu doon loolu war téef la ci yow nga taxawu leen ci liggéey bi may leen sax ay moyens jàppal leen ngir ñu ànd ndax du pour ñoom du pour nun mais sunuy doom la ak sunuy sët te ku nekk sàmm nga ëllëg yàlla dalay laaj li nga doon sàmm ku ne sàmm nga te njaboot gi yàlla bi mu ñuy wax moytandiku leen sawara te moytandiku leen seen waa njaboot qu anfusakum wa ahlikum naaran la wa moytandiku leen sawara waaye na ngeen ko moytandikuloo seen njaboot te ku ne am nga léegi sa njaboot lu la ci jaaxal te kanam la jëm ndax bu ñu demee ba tele yi ngay seetaan amatul programme ndax lan problème mu jikko bala ñoo mën a seetaan vidéo vidéo bi wax lu ñaaw te yàlla noon na innal na yuhibbuuna an tasia alfaaxisa fi lladina aamanu lahum adabun alimun fi dunia wal axira wallahu yaalam wa antum la taalamuun ñi nga xam ni bala ñu am kontantement ñu dégg ñaawteef ñu dégg nga Bichri li mu def jox ma vidéo bi yow partagé leen ko ñu commencé yàq deram ku ne di wax ci moom ñooñu ci loolu la ñuy bége bala ñoo am mbégte rek ñu ŋàññi benn jullit def ko vidéo ñu jël vidéo bi commencé partagé ku ne jox sa moroom ñu ciy débattre nga kontaan door a ñoo ñu leen gën a yées amul jullit dafay sang mbokkum jullitam yàlla mi sàkk sax jaam ñi dafa maandu ci yu baree baree bare te mën na koo faj kon yow waroo amoo droit ndax moomoo àjjana moomoo safara moomoo mbindeef yi amoo droit di leen di leen ŋàññi te léegi dem nañ ba senegal léegi nekk loolu benn fait divers yi léegi dafa bari ba tey jii ku xëy rek ci loolu ngay dox yoxi jàmbur jëfi jàmbur wax ju ñaaw jëme ci ab jullit nga koy tasaare di ko partager bëgg mu siiw ci ñi gëm yàlla kooku sunu borom nee na ku ko ci bàyyiwul dinaa la teg mu mbugal mu méttee métti ci àdduna ak ci àllaaxira yéen a koy def nag ñàkk a xam a tax ngeen ko def man yàlla xam naa li tax ma wax leen tere leen ko kon loolu tam bu réew tollee foofu sàmm jikko koy war naa jóg su réew demee ba toll ci ngóor jigéen ngóor jigéen nga xam ni lu xaraam lu bon lu yées lu yées nga xam ni yàlla dëpp na ci suuf. sànni leen ay xeer alag leen ba faw ci jamono yanantu yàlla lóor ci peuple am moo tax sa baat bi liwaat fa lañ ko jële mooy sodomi mbirum góor jigéen boo nekkee góor jigéen lóot yi la sunu boroom meroon ci ban këpp ci àdduna ñu dem tey bu koy dégg ci réew mi ñu man fee am droit am ñu leen di dooleel am ñu nanguwul kenn wax leen dara soo leen waxee dara ñu dal sa kaw ni maandul ci ñoom loolu problème la te ñu koy wax di naa jullit la ñuy doon la ñuy woote comme yow waroon koo xeex tey di leen dooleel kon sàmm jikko yi war nañoo jóg suñ demee ba ci am réew ger nekkatul dara kenn du ger ba tiit corruption rek ger joxeel jàll fii boo fi toogee di lijjanti doo dem joxeel jàll loolu nekk loo xam ne dafa nekk lu normal loolu war nañoo tiit te réew yi nga xam ne sax gëmuñu yarantu bi ah, la ci ëpp boo gëmuñu yarantu fi mel ne ay Amérique France di xeex ger ñoom ndax man j'ai fait les États-Unis jaar naa fa xam naa leen bu baax dañuy daw guerre tey bu ñu la fekkoon sa biir liggéey di la jéem a guerre ki ko def ak ki ñu ko def ñëpp la ñuy sanctionné futti ko mu ñàkk fonction ñu tëj ko ci kaso ba faw ngir xeex guerre réew mi léegi léegi nga nekkatul dara pour guerre ñu dem ba ci am réew ñi waroon a nekk tey jii dinu nu indil paix jàmm war a nekk tey ñoo xam ni ñooy les régulateurs socio muy les chefs religieux. nga xam tey diini ñoom lañuy ñuy ndamoo sunu borom mën na leen ruuse seen ñaan pour dëkk bi am tranquillité seen maam yi xàlloon liggéey bii diini islam tey ku ci jariñu seen maam yee ko xeex ba mu dugg ci réew mi ñii seen bakkan des ci ñii daj ci lu nekk amuñu liberte amuñu indépendance mm. ba fi seeni deret ñu nekk kilifa yu magum jëmm nga war leen a war wormaal ay xale yu ndaw làqut ci réseaux sociaux yi saaga mm. loolu lu mu doon di leen saaga guddig bëccëg ñuy defi vidéo di monter ñu dem ba li war a nekk suñu yitte mooy xeex ak ñi bañ islaam suñu yitte mooy xeex ak ñi bañ yanant bi ñi bañ suñu diine ji suñu mag ñii au lieu que ñu xeex ak ñoom waaye ñuy xeexante ci biir ay tarixa bala ngaa gëm tarixa sàngam da ngay nekk jullit yanant bee gën a nekk priorité bala ngay tànn ban tarixa nga jëm da ngay nekk ci lislaam kon lislaam bi ñu boole boo gën a yaatu mu ngoog waaw yooyu yëpp yooyu yëpp rek mooy li ma la wax loolu lépp dafa dugg ci crise bi mm. tey xasante ŋàññante mm. pas-pasu jàmbur këlee ngay xas kële këlee ngay xas kële ko wax léebu sa morom gaaral ko di wax wax ju ñaaw joo xam ni yow doo ca dara mag ngi liggéey nañ ba jàll ngay ngay ngay weddi ak di leen linkaar ak di sa yitte jëpp nga def ko ci def vidéo song ko la deful dara dem nañu ba ci ñun ustaas yi waroon a booloo nekk benn au lieu ñu dégg benn njuumte ci yow kuy wax dina jub koo mën a doon booy wax di nga jub ndax yow doo yàlla doo yanant wi da ngaa war di jub waaw léegi boo juumee sa mbokkum daara war laa woo jubbanti la ndànk ci téléphone ni la sëñ Ablaye dégg naa nga waxee nii boo ëllëgee waxeel nii moo gën a rafet du ko def de vidéo lay monté jël sama photo def ci croix kurwaa la commencé di la saaga lu ne mu wax la ko te du xool ñaar fukki at yi nga waxoon lu rafet fanweeri at yi nga waxoon lu rafet benn njuumte mënu la koo tollare te ñay caaxaan sax mën a tolérante te ñun mënuñoo tolérante kon léegi problème am ci jikko yi ñu dem ba jigéen ak ni ko yàlla sàkke ak ni mu ko suturaale mën a taxaw ci ay réseaux sociaux summi boppam fotowu ñu koy tasaare mu war a des ci internet ay doomam ak sëtam di ko gis te kenn tiitul. ñu war a dem ba njàng nga xam ni réew mënta développé lu dul jaar ci jàng ak làmmeñu boppam ak làngam mu fonk ko ak nangoo liggéey ak gëm boppam gëm réewam ñu dem ba tey jàng dañ koo banaliser foowe ko lool li ñuy def ci caaxaan bi ëpp mi lu bare bare ba li ñuy def ci njàng mi ku wérul doo mën a taxawal dara ñu dem ba wàllu paj liñ ci war a def ñu ginnaawal ko nga xam te ñiy liggéey guddi duñu nelaw ñooy sàmm nit ñi di wutal seen wér-gi-yaram tey jii joxuñu leen valeur ñu dem ba ñay àtte nga xam wàllu justice ñoo ñoo war tey àtte lépp ger gi dugg ci biir xeexante bi dugg ci biir ah farlante bi ëpp ji par parlo bi dugg ci biir mais problème am Sénégal problème yii am nag dajaloo kon kuréel war naa jug xeex ngir sàmm jikko yi ku leen jàppalewul waru leen a ŋàññ man loolu laa gëm mooy sama conviction personnel kon yàlla leen yàlla jàppale ci liggéey boobu te taxawu leen sama xol bii de ànd na ci ndax xam naa ne bu Sénégal jagee Sénégal gi ñun ñëpp la jagal sunu njaboot la jagal réew mi lay jagal ëllëg te dina neex mag ña fa ñu tëdd ndax ñoom ñoo sàmmoon liggéey bi teg ko ci sunu loxo waru ñoo dem ba jot ko di ko saboote ak di ko ñaawal. léegi li ci tolliku nag ah, kooku nga may wax nga xam ni hëddiya ah di ko jéem a saboote waaw du ma tudd tur waaw man du ma tudd tur kenn parce que léegi noonu laa bëgg a doxee ci réew mi. waaw soo ma laajee daal mbirum hadiya am na ku ko saboote ma xamal ko ni moom la muy saboote kon saboote na lu yanant bi daan nangu ndax yanant bi daawul jël sarax waaye daana jël hadiya hadiya ju ko Ousmane joxit Seydina Ousmane moo tax mu fanaan ci jumaay Madina ba suba di ko ñaanal ni yàlla na ko yàlla jéggal ak lu Ousmane yëlif te hadiya mooy kado rek booy defal ki nga ki yàlla booleel ngir lan mu gën a dolli sa pas-pas sa digganteeg moom kàddu day tax ngeen soppante yenante bi di joxante leen ko nga ngeen gën a bëggante waaw te it kanam la jëm ndax xam nga ak ndox mu ngi commencé ci loo xam ni mënoo ci dara da ngay wax ba dee ba fi day gën a jëm kanam euh, sa waajur dund na ba dee mënu ci dara yow ngay gone ko ndaw mënoo ci dara du sa xam-xam du sa yar du sa teggin nga bëgg a taxaw di ko linkaar dañ la cee xam te doo ci man dara te bu ëllëgee ñu gën a joxeeti àddiya mënoo ci dara ndax ñoom ba ñuy liggéey yàlla la ñu liggéeyal yàllaa leen fay bu la yàlla fayee nag dalay tàggatal mbindeef yépp lu ñu yor yéene la ko léegi nag soo ca nekkee di jéem a linkaar dañ la cay xamee sa sa mbon waaye du tax nga am ca ndam kon yooyu amul solo ñun daal nañu fas yéenee xeex yi gën a nekk lu important mooy lan xeex yii di am ci réew mi te muy jikko yu bon yii di am ci réew mi te muy yoo xam mën naa tax ëllëg suñu borom alak adduna bi yépp nañu jéem a xeex yooyu te yi nga xam ne nag nit ki ku neex lay gëm mënumaa accepter ku ne am sa diiney bopp gëm ko say principe kële gëm pas-pasam moo liggéey xaalisam yow dimbaliwu ko ci xaalis ba jox ko ko ko neex sa yoon sa yoon nekku ci waaw sa yoon nekku ci waaw boo maandoo sa yoon nekku ci waaw ndax yow man bu ma liggéeyee sama xaalis su ma neexee nga ñëw may la sama xaalis waaw boo ko teg nag loo xam ni moom fola di pookariwu jël xaalis ci mbedd am ay gor yoo xam ne bi ñu añee dunu reer am ñoo xam ñu ngi wér a tëdd ci lalu hôpitaux yi mënuñoo faju mm. nga jël xaalis mel ni koy saboote di ko fawe ci ak fo kooku moom bokkul leneen la kooku moom sabotage la baaxul daal kooku mën nañ ko critiquer mm. waaye ki jël addiyaam ba mu leew ko di magum jëmm denc ci réer gis sëriñam di ko doy yàlla boole leen mu ñëw ni ko maa la jox li defal ma ko ci liggéey bi lu ci sa yoon waaw kon loolu dañ nga caa war a maandu waaw jërëjëf sëriñ Abdoulaye Diop Bichri defe naa waxtaan bi waaye dañu waxtaan bi daf nu daf nu hmm. daf euh, kàddu. di ñaan jàmm ci réew mi. Hmm. waaw réew mi bu dara yàqoo ñun ñëpp la yàqul. Hmm. kon yàlla ci yàlla def jàmm. coow li am tamit ca diggante Ukraine ak euh, Russie. yàlla yàlla fay ko. yàlla na yàlla fay ko parce que tamit euh, lu lu mat ñaan la mu fay. ndax ay du yem ci bopp boroom waaw euh, wattaqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum xaassa waaw kon yëf yi du yem ca ña ko tax a sooke woon rek kon yàlla na ko yàlla yemale foofu ndax Russie réew mu rëy rëy la mbaa xam nga ni Russie ëpp ci àdduna ci rëyaay waaw da ko boot Russie moo gën a rëy ci àdduna tey bu ñu xool les pays les plus vastes au monde Russie njëy ñëw première position deuxième position Canada troisième position États-Unis quatrième position Chine cinquième position Brésil sixième position Australie septième position Inde huitième position Argentine neuvième position Kazakhstan dixième position Algérie dëkk bu rëy la. Russie dëkk bu rëy rëy la. ba pare ci wàllu arme nucléaire am nañ lu ñuy wax Satan 2 bu ñu ko noonu vidde ci France rek France gépp jeex lu mel noonu su juddoo ah te doo xam la ko sooke dëgg-dëgg ndax ay par parparloo te lu bëri nag occidentaux yooyu ci dugal seen loxo waaw ndax dañuy taal ay ba pare dem toog feemel duñ ci dara loolu nag bu sooke woo mën naa lor ñu bari ñu seen yoon nekkul kon nag li ci war jullit yépp mooy ñaan jàmm am ñaan jàmm am ah ñu bañ a àgg fenn fi ndax troisième guerre mondiale bu amee musiba la ndax fi ne fi wàllu armement nucléaire toll jéggi na dayo kenn mënu ko imaginer di la ko wax ni mu toll gëstukat yee ko xam te benn bi mën naa tukkal àdduna kon yàlla na ko yàlla saafara ah, mbokk yee cay loru tamit suñu borom dimbali leen ndax metti na lool ndax danga koy xool ci bu la dalul rek doo ko xam waaye bu la daloon nga xam metti na waaw ah, keroog bi may jógee xu voyage xaw ma fanati maa ngi ànd maa ngi dend ak benn femme polonaise mu ngi ànd ak jëkkër ja yooyu ma xam ne rek tey Pologne ñu ngi commencé di quitter foofu ndax Ukraine waaw mu ngoog kon nag metti na yàlla yàlla fay ko te yàlla def jàmm ci réew meeg réew yëpp yàlla defal ñu déggoo defal ñu jàppalante waaw te defal ñu tawféex maa ngi lay sant yow it ma jaw bu baax ndax yitte ji rek man mu ñàkk solo mii te néew xam-xam nga dagg sa yitte ah, vraiment ànd ak sa équipe ñëw ba ci sama kër ñu dama lay laaj si lu jëm ci luy soxal luy defar kooku tuyaaba ji nga ma yéene nga xam su ma waxee man naa am bu lépp boneet dina am lu tuuti lu ci rëcc rek baax mm. nit mën na koo dégg jube ci mm. te yanant bi ne woon wax dara nit jube ci man na laa jural yow àlliwun àdduna xéewal ak li ci biiram kon yàlla na ko ci yàlla def ñu ngi lay sant di la gërëm ak équipe bi nga àndal di sant mbokk yépp waaw di leen ñaanal waa Dakar Net yàlla yàlla gën leen a jëmee ca kanam ñu ngi nuyu waa seen équipe bépp rek di leen sant di leen gërëm yàlla yàlla faj aajo yi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp lu ci dëng nag man mi doon wax di taalibe bu ñàkk solo yaakaar am Amsatu Mbàkke mu sëriñ chon yi muy sama bunt di taalibe sëñ Tuubaa bu bëgg a nekk taalibe bu bu ñu nangul maa doon jéem di nab na bi waaw lu ci jub nag yàlla ko yàlla def tuyaaba ak yiw te jox ko àdduna bi yëpp yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ngeen baal nu àq baal nañu ñëpp. jërëjëf sëñ Ablaye Diop Bichri ñu ngi lay sant bu baax a baax yow it kenn gënu la jëmm ju baax nga joo xamante ni Sénégal ñëpp dañu lay seetaan ñëpp di la teewlu kenn ku ne di am référence boo xamante ni mi ngi koy jël ci yow. ci sa waxtaan yu am solo yi nga xam te yaa ngi koy def ci réseaux sociaux yi muy ci télé yeeg yëpp ñëpp di la bàyyi xel di la eh, di la déglu muy yoonu murit yi ak diine gi ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu yàggal la fii nga gën a wér ñu ngi leen di jox mbokk yi dig daje ba beneen yoon ci seen beneen numéro al ilmu